asalaamaaleykum yéen ñi nga xam te ni yéen a ngi suivre si la télévision Leral TV ñu ngi fii nag tey ci diwaanu Toubacouta dalal ki nga xam ne nii mooy Mar Masala ñu gën ko am Mar Ndiaye sax wala Mar Masala nekk artiste poète nekk aussi conteur ñu fas yéene waxtaan ak moom toujours rek dans le cadre ci festival bi woon ñëwam fii ci diwaan Kouta di ñoomin Badia Mar nag nekk benn jeune bu trente boo xamante ne nii bi leen métier bëri na yoo xamante ne nii mu ngi ko ciy joxe rawatina ci ndaw ñi loolee tax tey jii euh, ñu profité ci bile festival fas yéene waxtaan ak moom par rapport ak vécu am moo ko dugal ci li nga xam ni mooy li ni mel mais aussi euh, ñan ñooy cible ak ak lu tax mu tàmm comme compte comme message pour mun ko véhiculer pour mu nekk message boo xam day persan mais aussi ndaw ñi nga xam te ne nii moom la jël comme cible pour di leen jox yi leen message lan mooy ko undu dëgg-dëgg xam naa nag laataa ñuy tàmbalee waxtaan bi rek dañ koy jox mu ñu ko nuyoo ba di nuyu donc di nuyu téléspectateur euh, Leral TV yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi seetaan euh, Leral TV donc di am mbégte tamit euh, bu rëy donc dalal leen fii di Île di saalum yi particulièrement Toubacouta donc di leen wax ne daal dal leen jàmm. ma d' abord nañ ñëw un peu ci Toubacouta ak festival bi huitième édition bi mu nekk loo xam ni dafa boole ñaari affaire culture ñaari ñaari dëkk c' est des choses yoo aussi yéen artistes yi dafa mel ne baax na pour au moins nit ñi di leen gën a xam. tout d' abord dañuy euh, féliciter donc équipe bi nga xam ne ni ñoom ñoo liggéey liggéey bu am solo bi. pour mettre en place festival bu toll nii festival yu ñoomi Badia donc euh, muy laal lu mel ni Sénégal ak euh, Gambie donc di leen euh, boole donc ku wax Sénégal ak Gambie xam ne ay ay ay ay ay dëkk la yoo xam ne nii ñoo bokk lépp. waaw donc di festival bu am solo donc buy dajalee cosaan ak aaday dëkk yooyu yooyu yëpp. et ñu ci euh, wax ne rek euh, mbégte la donc euh, doon doomu dëkk bi donc tamit di ci participer pour que festival bi tamit li nga xam ne moom la ñuy ñaan muy maanaam wane cosaan ak aadawu dëkk yi nii donc te muy jouer rôle bu am importance tamit ñu nekk ci. Mm-hmm. donc muy mbégte comme ni nga ko waxee nii donc muy festival bu am solo boo xam ne day permettre nit ñi ñu mën garder loolu nga xam ne moom lañ am donc muy suñu culture yeeg tradition yeeg yëpp yi nga xam ne moom moo nekk ci euh, zone bi. yow nag da nga am particularité par rapport ak yeneen artistes yow euh, da def li nga mooy conte d'abord nga expliquer un peu sa parcours lan moo la xiir ci nga bëgg a def li nga mooy conte peut-être ñi ko xamul mooy lépp peut-être suñu suñuy aada lu ba nga am boobu boobu flair yow. donc euh, lépp moom bu ñu koy wax moom mën nañ ne depuis ba ñu nekkee xale daf doon loo xam ne ni tey daf ñu daf ñu neex. ndax dañ doon euh, toog di déglu ku mel ni euh, sunu papa Ibrahima Ndiaye maam Yaxi Laalo donc ak ñu mel ni suñu nijaay Babacar Mbaye Ndaat ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne nii ay nit lañ ñu doon toog ñu toog rajo donc di leen déglu donc lépp doonoon loo xam ne daf ñu neex ndax dañ daan toog ci yooyu ñooñu doon euh, raconté donc di ko manière wala di toog ak suñuy moroom donc di leen reetaanloo mais boobu xamuñu woon lépp li mu mën a def ci ci nit mais aspect reetaan bi lañ doon xool lu ci ëpp mais ci ginnaaw ay enseignement mu ngi ci donc par la suite ci la ñu ci la ñu daal euh, gis ne lii loo xam ne nii la bëgg nañu ko donc euh, aar nag ñu ci dugg côté 2009 mën nañ wax mais bu ñu commencé def lépp 2012 donc la ñu commencé donc euh, di partager et puis aussi di def li nga xam ne nii tey jii nii moom mooy ay recherche par rapport ak loolu pour comme mën ko def li nga xam ne ni moom mooy métier. Mm-hmm. donc ci lañ euh, commencé nag di def ay recherche di def ay formation di rencontrer ñi nga xam ne nii ñu mel ni ay professeur Massamba Gueye ak euh, ñoom Zumba ak ñeneen ak ñeneen donc euh, am occasion di toog ak ñooñu wala di leen woo di déggante ak ñoom ñu ñuy wax yoon bi ñu mën a jël ba tey jii nii egsi foo xam ne nii tey dinañ mën a partager ak nit ñi li nga xam ne nii moom mooy Art Conte et puis donc ci loolu la daal lañ nekk. mais euh, particularité bi mooy yow da ngay jouer wala en même temps di defaare sa compte maanaam yaa ngi yor benn instrument de musique boo xam ne ni aussi euh, am na loo xam te ni muy symboliser xanaa loolu mooy particularité bi par rapport ak les autres. donc waaw ñun bi ñu commencé compte yi donc euh, gis nañ li nga xam ne ni liggéey bu rafet bi nga xam ne nii mag ñi ma la limal fii moom lañ def ñu mel ni ñoom Massamba Gueye Zumba ak ñeneen ak ñeneen donc ñun dañu inspiré wu ci ñoom. mais indi ci benn touche boo xam ne nii day doon loo xam ne plus de mooy maanaam ci biir spectacle conte yi ñuy def ñun ñu jël suñu instrument lu mel ni flûte jémbe kaas ak yeneen ak yeneen ay leket dugal ko ci li nga xam ne ni moom mooy suñu art pour mën a gën a véhiculer message yi ñuy véhiculer donc da gis ne tey euh, mën nañ jël ñeneen ñuy jouer instrument mais ñun en de ça puisque nag dañuy liggéey xale lu bëri donc moo tax ñu gën a jël li instrument yi nga xam ne lu mel ni flûte jémbe kaas-kaas di ko ci boole pour gën a mën a captiver attention tey public bi nga xam ne ni moom la ñuy kii. Mhm. xanaa juste nga defal ñu benn exemple laataa ñuy continuer am. di am waxtaan bi. ayca.

lu lu lu lu kéemaane. Mm-hmm. Uh, la dafa mel da ngay attiré li nga xamante ne nii mooy say cible par rapport avant ngay def le compte yi ngay def donc. exactement donc euh, comme instrument yu mel ni instrument flûte donc muy ay instrument vent donc souvent euh, comme ni ñuy wax rek. intro wala dugg pour nekk euh, ak public bi mm-hmm. donc dañuy utiliser instruments yi pour boole tamit public bi ci li nga xam ne ni moom la ñuy def ndax tamit euh, compte bu ñu koy wax tamit interaction la entre euh, compteur bi ak public bi donc c'est pas pour rien tey euh, ci ñun bu ñuy commencer compte donc di wax léeboon lippoon amoon na fi daana am ba mu amee yéen fekkee public bi ne yaa wax ñu dégg mm-hmm. donc loolu muy interaction entre compteur bi ak public bi pour wax ne rek tamit compte bi compteur bi day raconter mm-hmm. mais public bi tamit da ci participer ndax tamit bu ñuy wax histoire kenn ku nekk dund nga ay histoire kenn ku nekk dégg nga ay histoire mais c'est une manière pour que tey interaction boobu di am ci public bi ak compteur bi amené à ce que tey nit ki bu jugee fii bu demee xam ne nag oh man kat tiens li ma déglu tey jëlee naa ci lii jàngee naa ci lii xam naa ci lii donc euh, loolu la. d'habitude nag euh, lépp dafa am bëri na compte boo ko def am na am ne c'est am na divertissement mhm. am na yoo xam ne ni c'est éducatif yow donc ñun en comme ni ñu ko waxee lépp la ñuy utiliser ndax tamit compte bu ñu ko waxee mooy bu njëkk loo xam ne ni da yar nit ki loo xam ne da doon permettre nit ki mu xam moom kan la doon. mais di permettre nit ki tamit tey jii nii mu pare balaa mu génn ci société bi donc bu ñuy wax léegi ñun loolu la ñuy loolu la ñuy def donc dinañ raconter pour nit ki reetaan ci biir reetaan boobu dina may enseignement pour nit xam bu baax jàng bu baax comme na ko maam yi doon defee doon ay jikko yoo xam ne nii tey ji nii moom la ñu am. a ci jox ma benn exemple. tey euh, bu ñu joxee exemple hmm? euh, bari na yi ñuy joxe donc euh, maanaam comme compte bi nga xam ne nii tey jii mooy compte Sunjata bi. Hmm. donc muy compte boo xam ne tey dafay jàngale njàmbaar. njàmbaar. Hmm. ndax bu ñu waxee Sunjata wax ne tey nit la koo xam ne nii tey am na rôle bu am importance boo xam ne nii tey joué na ko ci histoire Afrique. donc di wax léeboon lippoon wala taalin taalin dima diima tey amoon na amoon na fi daana am Sunjata di benn ndaw bu juddoo réew wala dëkk bu ñuy wax Afrique Sunjata juddu mënul dox yaay ja daal di am lu ko metti juddoo ci kër boo xam ne ni baay ja moo di naare mangaan yaay ja di songolon keeju ñu ko daan tooñ naan ko songolon jigéen ju ñaaw ji mu doonoon koo xam ne nii métit la koo xam ne nii bànneex da ko daa dégg doonoon koo xam ne it day jàmbaar waaye ba sunjata juddoo doon ndaw mënul dox yaay ja jaaxle bés ñëw yaay ji soxla ay xobu buy ngir mën a togg dal di dem ci ki nga xam ne mooy wujjam di jabar ju njëkk ci biir kër gi buur bi ñuy wax naare màngaan ba mu demee saasuma muy jabar aawo bi ñaan ko ay xobu buy ba mu ko ñaanee xobu buy yi saasuma daal di koy xool ndax saasuma mësu koo bëgg ndax jafe na ci gis koo xam ne da ngeen di wujjee mbëggeel daal di dox ci seen diggante ndax nag am na am na ñu xam ne wujje bokk wërsëg la ci noonee la yaayu Sunjata daal di ñëw tàllal ko loxo yi ñaan ko xobi buy yi mu demee togg ba saa suma gestoo dal di koy jànni dal di ne ko tuub xobu buy yi nga soxla daal di ko koy sànni ci kanam gi jëlal mu ngi noone man sama doom bi muy am at yi sa doom am mu ngi doon yéeg ci kaw garabu buy yi di ajji di ma indil waaye sama doom ba muy am at yii sa doom am mu daw di dem di ñëw di ma doxal ay yónnent waaye yow sa doom ji gis nga ko dox mënu ko wax bu leer sax mënu ko songolon di yaayu sunjata daal di am lu ko metti ci noonee la daal di génn dellu ca fa nga xam ne nii mooy néegam ba mu ñëwee ba ci buntu néeg bi daal di gis doomam jii di sunjata tiim leket di lekk xolam ba dal di jeex ci la commencé di ko yuuxu hey yow doom ji lee tey maa ngi nii dañ ma toroxal ndax yow Sunjata daal di jaaxle ndax mësul gis yaayam mu mel noonee ci noonee la Sunjata daal di ne yaay ji yaay lan moo xew yaay ji ne ko dama jóge ci sama wujj bi waaye toroxal lañ ma def gàcce gi xaw ma fan laay sangoo ba mu set Sunjata di xool yaay ji ba mu yàgg mu ne ko yaay na sa xel dal dañ la toroxal ngir man dañ la toroxal ndax lan yaay ji ne ko xobu buy rekk laa demoon di ñaan waaye sama wujj bile daf ma ko sànni ne ma tëyeel man sama doom ba muy am at yii sa doom am mu ngi doon dox di daw di yéeg ci kaw guy yi di aji foofee sum jata di am lu ko jam ci biiram daal di am lu ko jam ci biir jëmm ji ci la xool yaay ji ne ko woowal ma sama géwalu juddu bi ndax bu buñ ko waxee bu njëkk mooy ñi nga doon xam ne ñoo la doon jàngal mooy ñi nga xam ne ñoo la doon xamal yow kan nga doon la Sunjata daal di woolu géwalu juddoom juddu bi ñëwee daal di xamal Sunjata ki mu doon ne ko yow yaa di gaynde yow yaay ki nga xam ne ñëpp lay xaar ëllëg yow yaay ki war a dox yaay ki war a wax waaye yaay ki war a jiite mille réew si noonee Sunjata daal di jéngu ñu mu jafandu ci ngir jóg amoon ay jafe nag ngir jóg waaye nag kàttanam ak li koy xaar tax na Sunjata fexe ba jóg taxaw ba mu taxawee ñëpp daal di sara xolle daal di ne wax gaynde gi jóg na gaynde gi tey la nar ñëw ba tiim yaayam ne ko yaay xob buy kese nga soxla wala buy bi ci boppam laa lay buddil ak ay reenam indil la ko yaay ji ne ko sama gàcce gii nga xam ne ndox mënu koo sang ba mu set nga buddi buy bi indi ko samp ko ci sama ëtt bii rek moo koy faj ci noonee la sunjata daal di waaxu daw dem ak moom nit ñi di sara xolle ñii di yuuxu mu ñëw ba ci biir ëtt ba daal di koy sampal yaay ji ngir wan leen ne jàmbaar te boobee ba léegi Sunjata am woy woo xam ne dootul fay ba mukk kenn ku nekk nag li ngay ñaan mooy am woy wu baax woo xam ne dootul fay ba mukk loolu di lépp boo xam ne moom lañ doon partagé ak yéen comme ni ñu koy waxee nag ku ko njëkk a fontu tabbi aljana voilà <laughs> ah, may vraiment di am mbégte comme ni ma ko waxee nag ñu ngi fii ba tey ci Toubacouta ci cadre euh, li nga xam ne mooy festival Noumébi Badia bi nga xam ne ni bëri na ay acteurs yi fi ñëw di ci partagé ku euh, ne mooy dañ toogal ni di maara di nekk loo xam te ne am na solo <laughs> tey peut-être ak par rapport ak euh, lii ngay def nii fan la la yóbbu ba nga ko tàmbaleeg léegi ndax mës nga cee voyagé ndax aussi tamit yaa ngi am ay ay ci gis sa bopp daal par rapport parce que dañ naan souvent l'art ne nourrit pas son homme. waaw des des fois ñu ne l'art ne nourrit pas son homme mm. mais je pense que ne des fois artiste moom boo ko xësee ba doon rek ça te nourrit ndax tey jii nii yow li ngay def nit ñi di ko jël wala nit ñi di ci jàng. xëy na nit ñi alal ji rek la ñuy gis mm. mais ci ginnaaw alal ji am na loo xam ne ni lu am solo la mm. mooy maanaam tey yow di nga lépp wala nga raconter benn affaire nit defaroo ci ba bu génnee mën a représenter li nga xam ne ni moom mooy askanam indi li nga xam ne nii tey jii nii moom mooy ndam donc comme ni ñu koy waxee rek ñun am nañ euh, donc génn ci Afrique donc def fay euh, prestation mooy ci ci biir Afrique donc mel ni Gambie ak yenn dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci environ yi et récemment lañ jógee benn tournée donc Canada Québec donc euh, lii lañ fa doon partagé mooy art bi nga xam ne moom lañ yor donc doon defay spectacle ak ay atelier yoo xam ne nii ci université yi la ak ci école yi donc doon ko partagé xale yi muy loo xam ne nii tey jii mën nañu wax ne. yóbbu na turu Sénégal fu sori ndax des fois di ngay def benn affaire euh, boo génnee mais ampleur ba muy am ak la nga xam ne nii moom lay dégager tey jii nii nit ñi duñ la gis yow mais dëkk ba nga jógee moom la ñuy gis. Mm. donc ñu mën a wax ne tey jii suñ bopp ay ambassadeur génn nañ donc représenté Sénégal euh, ci réew yi nga xam ne nii lu mel ni Canada donc muy loo xam ne tey jii nag ñu ngi continuer ñëwaat suñuy activité fii ci Sénégal continuer ko. di waaw di ñaan yàlla peut-être mu am leneen lu ci. yeneen ak yeneen toppat ci incha allah donc loolu la ñuy ñaan aussi bëri na ay difficultés yoo xam ne yeneen ci jànkonteel peut-être moment la aussi pour nga revenir aat ci un peu. waaw bu ñuy wax difficulté moom donc euh, côté art moom am na ci ndax des fois soutien bi day des soutien bi day des jàppale bi day des mais comme li ñuy wax toujours rek donc ñun moom ñu ngi ci di liggéey. donc ku ñëw apporter beneen affaire boo xam ne tey mën nañu permettre ba li ñuy def nii ñeneen ak ñeneen euh, mu àgg ci ñoom donc dañuy tàllal loxo yi rek donc di wax ne ñu ñoo ngi euh, am ouverture donc ñu ngi liggéey souvent écoles yi bu dee am na écoles yoo xam ne ils sont intéressés à des prestations mais aussi à des ateliers donc euh, ci li nga xam ne moom la ñuy def donc ñu ngi tàllal loxo yi donc ku bëgg rek incha allah donc bu ñu contacter donc ñu ngi ci plateforme digitale yi. et puis euh, voilà contact yi tamit après peut-être mën nañu ko joxe tamit incha allah xam naa koy joxe mais loolee bon dañuy jeexale peut-être mooy avant dernière question bi gis nañ Toubacouta bëri na ay artistes yu mhm. nekk peut-être côté accompagnement bi ci état bi euh, yaakaaroon war nañ ko mën a gën a renforcer parce que c'est destination touristique mhm. ne mooy artistes yi peut-être mën na créer de l'emploi aussi si si lu ma gis mhm. waaw comme foofu noonu dañuy wax rek ne Toubacouta comme ni ñu koy waxee bëri na ay artistes ay ñoo xam ne ni talent kese lañ ndax bu koy wax tey jii nii booy xool euh, côté bale donc am nañ fi euh, troupe alalaake donc mu nekk fi ci biir loolu tamit am na yeneen ak yeneen artistes yoo xam ne leneen ak leneen la ñuy def muy ci way bi donc di ci euh, léegi nii commencé nañ ci cinéma bi donc muy loo xam ne nii tey jii nii mën nañ ne tey war nañ leen mën a jàppoor jàppale donc apporter leen soutien ba nga xam ne dinañ gën a mën a jaay destination bi ndax ñu ngi koy def ku mel ni ñun depuis des années ñu koy def te xaaruñ ci kenn te gisuñ ci jàppale mais ñu ngi koy def quand donc euh, di wax ne rek tamit tey ji ñu ngi tàllal suñu loxo pour que euh, tey jii nii. ñi ci mën a jàpp ñëpp ñu jàppale artistes yi fi nekk ñëpp donc di féliciter waale donc euh, l'honorable député donc Pape Seydou Dianko ak ñi nga xam ne tey jii ñooy autorité fii si Touba ndax ñoom tamit xëy na tey mënuñu jàppale ñëpp mais ñu ngi jàpp ci yenn côté yoo xam ne nii tey jii mën na. gën a dëgëral affaire yi mën na gën a def euh, que destination bi encore euh, une fois nit ñi gën ko jël te loolu la ñuy ñaan mooy maanaam jaay destination euh, île di Saloum yi ndax je pense que ne li ñu am fii recherche la li ñu am fii loo xam ne nii la te jii nii bëriwul fu mu am donc il suffit juste ñu mettre ko en valeur et puis aussi gën ko wan nit ñi pour que nit ñi tamit gën ko mën a jël. incha allah message tàggatoo lan lay donc message bi may tàggatoo donc di nuyu donc ñombaato donc ñoom baato bu ñu ko waxee donc euh, ñi nekk fii ñëpp donc di wax mag ñi tamit ñu leen di sàkku ñaan ñu ñaanal ñu bu baax a baax a baax a baax ci mission yi nga xam ne moom lañ jël donc euh, muy maanaam gën a dundal aar bi fii gën a dundal culture bi cosaan yeeg aada yi donc di leen tàllal suñu loxo di leen wax ñu ñaanal ñu te xam ne doomu ñoom baato lañ et puis aussi ñu ngi représenté di nuyu tamit suñu famille ñi nga xam ne dañ ciy jàpp ñëpp ndax buñ ko waxee am na ñoo xam ne ni tey ñu ñu leen di tàllal loxo et di leen remercier bu baax ci jàppale bi di leen wax ñu gën ci jàpp rek incha allah. ne am na solo j' espère que ni sax maa ngi ñaan du <laughs> pour ñu gën a mën a échanger parce que aussi faire la promotion de ces artistes là je pense que ni c' est important vu que aussi. si les zones yi nag day xaw a reculer les moyens n'est-ce pas pour ñu mën wane seen aar li nekk ci ñoom donc wax ngeen ko dégg nañ ko je pense que ni aussi état bi war na cee gën a mën a dugg. incha allah mën a accompagner gis nañ ni. y a des efforts euh, yi nga mooy aar bi donc le fait tey jii état war cee mën a gën a dugal loxoom gën leen a mën a soutenir je pense que ni mën a créer emploi bu baax a baax donc yow ma lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf ci ni ko nangul mais aussi képp koo xam te ne jàppale woon na ma ci liggéey bi xam nga nag tey moom liggéey bi léegi léegi ñeneen waa 2S waa TFM ñu ko leen jàpp si ah ma leen di sant bu baax a baax ñoom ñëpp ñoon jàppale pour ñu mun a def entretien bi ak kamte mooy Mar Kasala di leen jox rendez boo xam ne très prochainement ak beneen localité ak beneen invité jërë ngeen jëf